général mu ngoon dañu nekk si jàmm noonu yoo xam ne góor ñi day naw gelu jaamur gelu jaamur ji nangu faru jaam yee ba ci mariage yee ay waay dafa ñaaw dara neexuma fi dara dara neexuma fi kër goo xamante ne tey suba nga nga ñëw dégg fii lu bon lu bon dara neexuma fi dégg ay nit nekk fii di di di di di nekk fii si néeg bi di lëng-lëng loolu loolu yëfi yëfi yëfi kii la yëfi tegg la ñëw fi fa si dégg sama ak jabaram nekk ci néeg bi di lëng-lëng loolu yëfi tegg la yëfi tegg la est loolu yëfi tegg la rek ba sama waa xarit yi ñëw fii di ma jël si naan ma ñoxo suñu kër gi am na li fiy lëng-lëng loolu loolu tegg you, Maria je, ayo, da fanya noppaliku ñun dañuy noppaliku lii mooy lan. dama baay la mos problème. ok. yow mënoo ma may jàmm ak salaam da nga ada sa bopp nit yow. ok. dama baay yow da ngaa foog ni li am seen dëkk bee fi. am fii fii le la fii gars dañ lay rey rey la ak naan ci ndox mi la ñu yamal est ce que yaa may dégg. su ma sisee déglu ma su ma wax da nga da sa gi defar ko yow la mëno def sa bopp ni sëy pon yi nga sol sa sagar yi noppil bul wax man ngay wax da nga ko waa wa way mëno nga def sa bopp nit ñoo ko bàyyi yow lool la gis nga yow bo mo moytu ci gala bi nek ci gala bi dem mbel mbali chaque jour ko jëfé may tok di répéter di wacc sam programme bu nga may amer de ci wo oh, na ma naa coupé sama son yow yo ya ma coupé lo sama son ma lay laaj ndax yow yaa may coupé lo sama son ñoo ko Wala mo gamit bo okay? Yaa may coupé sama son. Gis nga bu eh bu ñaaree laa la wax bu ñaaree. Wangar jabaate Wah, wah, Tangan, tangan, am Tangan, tangan, am leneen looy wax yow. lu xew sama kër yaay dafa naan. la nga. heure ba sama yoon nekku ci ma ah yaa fay yow sama yaay ngay waxal naan sama yaay kaay rek kaay naan yaay yéen kii di nga mu bëgg foofu waay may ma yéen dëpp bi ngeen indi ko ci kër gi yow gis nga yow la def rek baax na ci yow ndax yow yaa ngi bëgg a ëpp la may ci kër gi dafa ëpp yow si la nekk si démb maa la dégg si néeg bi ngay def lëng lëng lëng lëng lëng kan mooy lëng lëng yow maa la dégg màkkaan yow yow yow koo fa la ilaha illallah yow de kii lim la def sax dafa ndaw da laa waroon a dóor ba rey la ndax yow da ngaa ëppal nga jàpp sa tuñ bii matt ko di ko mooñ ñunoo ba sa ni nga mel li ngay sikk yow maa la jëppi xool ko ni nga gisee woo cim àll bonni raawaan ak yow tamit àll vuri laawaaraani looy saaga waaw àll vuri ak laawaaraani yow nii nga mel moo la jële fa nga dëkk waaye fii kër gi doo fi tabax lif suñu ni ci àll vuri waaraaraani àll vuri ak waaraaraani maa ngi dem nag ngi sa nga ma ci kër gi maa ngi moom dina la nokk ba nga day muy saaga ndey alla funi ak waa raani alla funi ak saaga na xaw ma saaga xaw ma lu ma wax ni mu naa ma alla funi laa ay toog daal ba kenn wax ma na la rek lu funi laa waa raani waay yow Maa leen yow li nga toogee seen kenn nga toogee nii waxala kaw kaw nga rek. fii nga ko man. seen ñi nga ci toogee nii. mais yow ñu ko bàyyi yow man maa war a wax wala yow yaa war a wax. waaye seen ñi nga toogee kenn. ah Ibou sax yow léegi yow yow yow moo def nii. très bonne question. bonne question. sa jabar ji. kan sa jabar ji. Amita. ah xaw ma moom moo xaw ma. moom moo. ñoo ma jàpp te suba dañu ma dóor dóor dóor wu ñu bëgg a dee. Amita moom ñoo la dóor. ñoo ma dóor wu ñu bëgg a dee. loo leen def. def ma leen dara. ñu dóor la. waaw. mais Amita la ma ko dal wala fa daf wala ma ko dal Yo yo yo xool nii. xool nii gaañ na de. gaañ ma kay bàyyi ma nga koy wax. man ma yo yow gaañu yo ma yow yaa gaañu yow bàyyi ma nga koy wax. ah waaw. nekkal nit man loolu naa ko jënd. jëndi ko. yo yabu ma yabu ma de. yow mu doon la ma ma génn mu doon la damaa jëw. damaa jëw kay. loolu lépp jeex na tey bu ñëwee fii ndax lépp dëgg la. waay ndax ndax man yab yab yab yab ma sax. waay. eh kay. ba jàmm kay. doy ma jàmm de man. yow eh. kira dama tax dóor ko galax dama ko dóor wow. ma tay ya tay mais bi yo yo dama dama tax rew neex ma so ma ma ma ma gën rew man ma rew ba tak la rew do han tak la fi de de de dërëpatal mo ci dara da xajala maat non xajala am laxat maat depuis sax dañ dëkk tey nu mu te nga may xam ay xajala mat mais ma jàmm kii soxlaatee di malal ki li koy def sax eh eh, eh. kay nga mel ni am na kay ki li koy def sax ñëwagul nii Sénégalais yéen faaw ma jug tiim lay wax ak yéen a sax yéen mais mais yéen li yàlla moom moo moom moo kër sa suy kër la la moo tax a jàpp kii di ko dóor eh la moo tax a kii di ko dóor ko moo la tooñ nga dóor ko wax ko ko gis nga papa. waaw kii ni ngeen ko bàyyi ci kër gi. waaw dafa yomb kii maanaam yéen am dof ngeen jëlee ci àll ba ñëw indi ci kër gi sàngal ñu ko nag ñu duñ ko nangu dañoo boo xëyee da nga gën def sa yoon. waaw papa moom mënu maa nekk fii am programme lan demee tabaski war a répété samay son kii di ñëw di ma takk na di ma buure de gauche à droite. li mu doon def rek xam nga defee. ñu ah. ko bàyyi yaa xëy ma ngay way mu mën a may waye. papa mu la génneel son bëgguma ta way et puis sax kii na nañu ko tey boo xool dégg nga boo xamal la laa lay bëgg a xamal yow ma too kilifa eh, nga mel ni borom kër bu ñuy def bi ñax eh, eh, fépp mu naan fee da ngaa xiif turandoo waxuma ak yow benn bi nga am moo tax nga koy ko fii ko et puis sax laa wax eh bu ko laal dégg nga sa loxo bu ko laal wala leer de baba daal en tout cas li ma la mën a wax mooy kii li ma def bu ma ko defaatoon dama koy rey fii du dugaloon naa fi daaw nit ah. ren moom moo ci toog kii li nga koy def sax moo raw te su ma xamoon loolu nga may doyee sax du ma taxaw li ngay ñàkk fayda waay waay waay waay yow li ñu góor oh, oh. ma kii kii kii oo. xam nga lan la xam nga lan la xoolal. xoolal Habib ma taxawoo de. da lay saaga de da lay saaga. di xoolal xoolal. da lay wax ku la wax dara rek woo ma. da lay wax Habib maa seetlu jaay bi ku la wax dara rek woo ma. xaaral ay ma kat ana ana ana.